di la nuyu di la ziara euh, di nuyu sama naataango yi ma fekk ci plateau bi. Uh-huh. Euh, di nuyu téléspectateurs yi. Euh, di am yaakaar que ni lépp luñ fi war na jëriñ askan bi. Uh-huh. jërëjëf El Hadj Daouda alors tey da nga bëgg a taxaw ci ay kàddu yu Birame Souleye Diop yi moom mi jiite groupe parlementaire Yewwi Askan Wi hmm. nga bëgg a ab laaj maanaam lan moo ko ci nar a fekk moom ginnaaw bañ ko tegee loxo ba léegi. Hmm. waaw xam nga dafa am kàddu yu nga xamante ne jëbal nañ jëbal na ko. Hmm. kàddu yu nga xamante ne duñ ci dellu parce que même moom si boppam euh, jàpp na ne euh, warul woon. Hmm. ba mu njuumte la ba mu présenté ay excuses am bon à partir du moment où présenté na ay excuses bëri nañ ñu nga xamante ne jàpp nañ ne mënoon na yem foofu parce que tooñ na jàpp na ni tooñ na moom si boppam. et puis wëlbatuku na daal di présenter ses excuses mënoon na mënoon mënoon na yem foofu moom ñu bëri loolu la ñuy wax. mais toujours est-il que procureur en personne bi nga xamante ne moo nekk le maître des poursuites moom si boppam dafa enclenché un certain nombre de procédures euh, loolu noonu nag dafay am jeexital forcément en droit donc euh, bi nga xamante ne def na li ñuy woowee autosaisine dafa def euh, li ñuy woowee soit transmis au niveau de la sûreté urbaine ñu convoqué ko daal di koy auditionné notifié ko garde bi foofu noonu li nga ciy mën a déggee mooy Birame Souleye député la député à l'Assemblée nationale. boo gisee ñu convoqué ko jàpp ko téye ko noonu rek c'est parce que le procureur dafa choisir la voie du flagrant délit bu dul woon a flagrant duñ ko mun jàpp mm-hmm. parce que boo jëlee article 51 bu réglement intérieur bu assemblée nationale bi nga xamante ne moom moo reprendre article 61 bu constitution du Sénégal daf ne député kenn mënu ko jàpp sans l'autorisation du de l'assemblée nationale suuf bu fekkee ni flagrant du flag du flagrant donc flagrant délit lañ ko lañ ko lañ ko jàppee ba mu nekk en garde à vue depuis depuis euh, je pense àllarba euh, vendredi defere woon nañ ko au parquet biñ ko deferee dafa am lu ñuy woowee retour de parquet mooy dañ ko delloo waat il a passé euh, le week je pense au niveau du commissariat central euh, maintenant ñu ci bëri ils se disent Euh, vu que dafa am retour de parquet soo motul instruction la jëm soo motul procureur ci boppam day jël kayit bi euh, benn kayit daal di koy jébbal un juge d'instruction daal di koy demander à ce que mu ubbi une information judiciaire bon man personnellement je pense que ay wax yu nga xamante ne hmm. euh, wax nañ ko moom ci boppam mu génn daal di koy naqalu jarul jarul instruction parce que toutes les conditions sont réunies bu fekkee jàpp nañ ne li mu def ñaawteef la ñu yóbbu ko en flagrant délit daal di koy jugé. Mm-hmm. voilà après fu mu féetee ñu xamante ne foofu foofu la féetee. Mm-hmm. mais toujours est-il que le procureur a bel à la possibilité euh, moom ci boppam mu choisir la voie de l'instruction dans le cadre de ce dossier. li koy waral moo di euh, ñu bëri dañuy dañuy dañuy wax que ni puisque député la. ñu arrêté ko en flagrant délit dañ ko war a juger impérativement au tribunal des flagrants délits mm. alors que y a deux choses qui sont qui bi nga xam ne dañ ko war dañu a def différence bi def différence entre li nga xamoon dañ ko considérer comme infraction flagrante def différence bi également en ce qui concerne la procédure ñaari bokkul la su fekkee ne da nga jël li ñuy woowee une infraction flagrante boo demee article 45 bu code de procédure moom moo ko définir mm. daf lay lan mooy lan mooy wala lan mooy délit flagrant mu ne la crime flagrant wala délit flagrant mooy li nga xamante ne dañ la jàpp au moment nga koy def wala da nga ko def ba pare ndiiraan topp la ñu jàpp la wala dañ lay dañ la jàpp à un temps à un temps dans un temps voisin de la commission de l'infraction loolu mooy infraction flagrante maintenant nag ca procédure ba boo demee da ngay dem article 70 bu code de procédure pénale moom moo koy régler foofu noonu nag dañ ne lépp lu bu fekkee ni li nga def crime la dañ ko considérer comme un crime l'instruction est obligatoire mais bu fekkee ni délit la l'instruction est facultative li nga ciy mën a dégg mooy procureur mën na choisir la voie de l'instruction comme mën na bañ a choisir la voie de l'instruction ce qui fait que dans l'affaire euh, Birame Souleye naam man je pense que jarul jarul ñuy dem instruction mais il a de très fortes chances à ce que procureur choisir la voie de l'instruction pour euh, dison téye ko kaso pendant un moment avant ku ñu koy jugé comme ni mu defee dans d' autres dossiers yu nga xamante ne xam nañ leen déjà. léegi bu euh, demee lu ko ciy fekk. waaw parce que boo boo xoolee les incriminations yu nga xamante ne. nangoon nañ ko ci euh, avocat am. Mhm. pratiquement ñaari infraction la parce que dañ ne benn bi dafa dafa dafa dafa nu Euh, diffamation voilà. commise par un membre de l'Assemblée nationale contre un chef d'État contre donc dafa dafa wax lu nga xamante ne voilà dafa wax lu nga xamante ne dafay jéggi orma mhm. benn président d'Afrique bi nga xamante ne nekkul Sénégal c'est un président étranger boobu nag bu fekkee ne xool nga infraction boobu dafay méngoo pratiquement ak infraction bu nga xamante moom la ñuy wax ci offense au chef de l' état boo xoolee peine yi benn la. Mhm. parce que boo jëlee infraction boobu article 265 bu code pénal moom moo ko prévoir. boo jëlee offense au chef de l' état article 254 moom moo ko prévoir boo xoolee li nga xam ne teg daan ci ñaari infraction yi pratiquement benn la muy juróom benn weeru kaso bu nga xamante mën na dem ba ñaari atu donc pratiquement même même même même infraction ñaari articles yu bokkul la mais boo xoolee liñ ci teg ci daan benn la dañ ne ñaari juróom-benn weer la commencé mën na dem ba ñaari atu kaso wala mu nekk une amande bu nga xamante ne cent mille francs la mën na dem ba un million cinq cent wala ñu choisir benn benn ci ñaar yooyu soit condamnation peine bi wala ñu choisir amande bi daal di koy daal di koy gàll ci kaw léegi nag am na beneen bu nga xamante ne tegaat nañ ko ci. am na discrédit sur une institution affaire yooyu. ak acte et manœuvre de nature discréditer les institutions de la République et inciter donc loolu nag boo ko xoolee article 80 la. donc article 80 boobu nga xamante ne pratiquement moom la ñuy wax chaque fois bu ñu mm-hmm. fekkee ñu ngi jàpp par exemple un homme politique wala ñuy jàpp ñenn ñu nga xamante ne jàpp nañ ne euh, trouble nañ ordre public article boobu lañ lay gàll te boobu nag Euh, li nga xamante ne da ko teg comme daan mu ngi commencé ci atu kaso mën na dem ba juróomi atu kaso. ci wàllu kii nag garde à vue moom am na limite parce que dañuy gis retour de parquet yi des fois aussi day bari. waaw parce que garde à vue bi garde à vue bi jeex na parce que garde à vue garde à vue la war a la war la la war la war a dérouler normalement mhm. bon am na ay exception nag garde à bu defee 48 heures. yow boo bëggee def prolongation de garde à yow mi nga xamante ne yaay officier de police judiciaire bi da ngay bind procureur de la pour que mu prolonger la mën na la prolonger beneen 48 heures xam nga muy 96 euh, heures 48 plus 4 96 heures maintenant dafa am yenn exception comme yi ma lay wax atteinte à la sûreté de l'État day dem 96 heures renouvelable bu nekkee en matière de terrorisme également day nekk 96 heures renouvelable mais dans garde bi 48 heures la durée amul sa renouvellement il a été déféré au parquet vendredi mais vendredi bi ñu ñëwee dafa am lu ñuy woowee retour de parquet maintenant nag retour de parquet nekkul garde à mhm. dafa génn ci ci ci ci garde à vue boo xoolee ñëpp dañuy jàpp ni et textes yi dañ ko dañ ko consacré retour de parquet c'est pas légal du tout c'est une pratique bu nga xamante ne dafa am au niveau de nos juridictions mais retour de parquet amul fenn fu nga xamante nekk na ci code de procédure pénale du Sénégal dafa nekk lu nga xam ne pratique et dafa nekk à cheval entre ñaar yu nga xamante ne code procédure pénale moom moo ko prévoir maanaam garde bi vue dañ ne 48 heures la après la garde bi bu jeexee impérativement da nga war a defaree au parquet sinon da ngay an da ngay da ngay yàq procédure bi parce que benn minute wala ñaari minute wala benn waxtu bu nga xamante yokk nga ko ci garde à wu nit avocat yi mën nañ basé ci loolu pour yàq pour pour pour annuler la procédure donc su garage bu jeex da ngay da yóbbu au parquet nu ñuy defaree au parquet nag mooy jël nañ nit ki ak les PV affaires yëpp daal di koy indi au niveau de la cave du tribunal confier ko administration pénitentiaire administration bi jël kayit dem jébbal de la république maintenant nag procureur su fekkee ne dafa jàpp ne dafa war dem institution day préparer un document bu ñuy woowee réquisitoire introductif jox ko benn juge d'instruction mais des nit ki bu ñu ko defaree disons ay 13 heures ñu dem ba ay 18 heures procureur bi pareegul. xam nga instant bu administration pénitentiaire bu ñu demee ba war a tëj ñoom seen cave. kooku mënuñu ko yóbbu prison parce que amagul mandat de dépôt. donc mënuñu ko yóbbu kaso parce que amul mandat de dépôt mënuñu ko yóbbuwaat fa nga xamante ne ñoom ñoo ko defaroon parce que garde à vue bi jeex na. léegi nag dañ koy jël dénkaane ko fenn. si seen jargon ñu ngi koy tuddee mise à disposition. loolu nag la ñuy woowee ñun retour de parquet voilà mooy nit ki defaree nañ ko garde à vue jeex na mais munuñu ko yóbbu kaso parce que amagul mandat dépôt situation intermédiaire boobu loolu la ñuy woowee retour de parquet. Euh, est-ce que moom jotoon na baalu comme ni nga ko waxee demande na excuse même si euh, président APR la ko. jagleel. Hmm. est-ce que loolu mën na trouver un écho favorable auprès du juge. non bien bien sûr que mën na trouver un un écho favorable loolu moo tax bi ma sama en temps propos nee naa la nee lu ñu dem instruction honnêtement su fekkee ne réellement dañu dañu bëgg ne def na ñaawteef ñaawteef boobu nga xamante ne def na ko. Hmm. Euh, war na war nañ ko ci sanctionner par rapport ak ak ak ak ak ak loolu nga xamante ne def def na ko t'as pas besoin d'aller en instruction parce que instruction la plupart beneen enquête ngay defaat pour xóotal pour pour xool ndax effectivement kii nga xamante ne wax na wala def na benn mbir li nga koy reprocher moom moo ko def. même si les excuses c'est euh, au président de l'APR et non au chef de l'État. non ak ak ak lu mu mën di doon. lu mu mën di doon parce que c'est des propos c'est des propos yu nga xamante wax nga ko ba pare ce sont ces propos là yooyu ngay ñaawlu yow sa bopp. parce que ñëpp ñuy wax dañoo ñaawlu propos yi amul kenn ku nga xamante ne d'accord na ci wax ji mu wax moom si boppam rendre na compte que ni la mu waxoon waxuwul mu ñëw excuser wu à part de ce moment là. man pour man soxlul ngay demaat instruction parce que boo ko defee boo demee instruction les gens ont la possibilité de le retenir en prison pendant six mois. Hmm. boo ko yóbboo instruction. maintenant bu fekkoon da nga ko jël yóbbu ko flagrant délit tey jii tey jii tey jii jël nga ko par exemple yóbbu affaire flagrant dans la semaine mën dañ koy dañ koy jugé. Hmm. mais bañ koy jugé également boo xoolee incrimination yooyu ma la wax également bon. mën nga ko bañ a condamné à une peine à une peine nga que tey jii comme li ma la euh, offense au chef de l'État que mu nekk lu nga xamante ne da nga ko wax ci ci ci ci beneen président réew hmm. peine yi dama la wax ne six mois la ba deux ans wala une amende de cent mille à un million cinq cent wala l'une de ces deux hmm. nan laa koy wax sax de ces de ces soit nga jël amande bi bàyyi pen bi wala nga jël peine bi bàyyi amende bi euh, même bu fekkee ne peine bi ngay jël également tu n'es pas obligé de le condamner à une peine ferme tu peux euh, le condamner à une peine assortie de sursis mm. mu nekk un avertissement comme ça ëllëg bu fekkee ne def na defaat na ko bu booba ngay doog a dal ci kawam convenablement euh, mais Daouda euh, les propos qu'il a tenus contre un chef d'État étranger mm. est-ce que ces propos mm. sont de nature réellement à créer un incident diplomatique parce que coow li tamit foofu la ñu bëri loolu la ñuy wax ne mën na indi ay jafe-jafe diggante Côte d'Ivoire ak Sénégal. non même bu fekkee même bu fekk wax ji wax ji wax ji kenn rafetlu ko encore une fois mais wax dëgg fa yàlla mois je pense pas Euh, ce sont des propos yu nga xamante ne dem na ba mun a indi incident diplomatique parce que incident diplomatique du ay peut-être ay ay ay ay genre wax yu ndaw ndawaan yooyu moom moo ko mën a moom moo ko mën a ça doit engager kuy ñi bokk ci ñuy jiite réew mi wala ah, non député la non député oui c'est un toujours éthique gis nga ñaawlu nañ ko ñaawlu nañ ko. absolument xam nga léegi amul excuse bu nga xamante ne mën nañ trou mën nañ ko trouver par rapport par rapport ak lu mu wax mais je me le simple fait que les autorités sénégalaises ñoom seen bopp jël les devant daal ubbi une enquête affaire genre même bu fekkoon ne meroon nañ xam nga waaw mer bi giif na hmm. maintenant nag euh, c'est pas parce que peut-être enclenché nga une procédure que après tu vas être très répressif jusqu'au bout enclenché nga une procédure après xoolal je veux dire le juste le nécessaire le juste milieu xam nga nga jël li nga xamante moom mooy la décision euh, adéquate nga daal di koy jël tu n'es de, de, de choisir la voie de l'instruction, tu n'es même pas obligé de le condamner à une peine ferme également. Donne, un, euh, je veux dire, une, euh, une condamnation d'avertissement parce que tout simplement moom def na ñaawte et moom si moom à la minute il s'est rendu compte de son erreur et il s'est excusé avant même que ñuy enclencher des procédures il s'est excusé mm-hmm. xam nga ni mu defee woon euh, conférence de presse wax wax la mu wax noonu la defaat une vidéo une vidéo une vidéo daal daal di excusé wu vidéo baa ngi ni excusé wu par rapport ak propos yi nga xamante ne à part de ce a là moi je me dis que dëgg fa yàlla on n'a pas besoin d'aller voilà d'en rajouter. bi moom moo ko indil boppam. Mhm. parce que il est appelé un jour en tant que responsable de parti à se rendre en Côte d'Ivoire. Mhm. te bu damee foofu xëy na peut-être accueil bi euh, mën na bañ a demee noonu je pense incident diplomatique bi gën a rëy. Mhm. moom moo ko indil boppam. je crois que je pense de plus en plus il faut que nos politiques également. ñu delloo si euh, les idées dominantes. bañ fi nekk di xalap ak di indi di xaxar mais ñuy indi ay idées yoo xam ni au moins euh, programmatique nit ñi dinañ ci bàyyi xel quoi je pense euh, message leçon bi ñu war a téere ci affaire Birame Souleye Diop bi c'est ça. Mm-hmm. au lieu ñu bàyyi euh, xaxar bi. Mm-hmm. ñu indi des offres programmatiques ñu liggéey ci je pense. non c'est le message moom moom parce que parce que. les hommes politiques c'est des porteurs de voix ñoom ñëpp porteur de voix lañ danga am ñu bëri ñu nga xamante ne dañ topp seen ginnaaw un homme politique fa mu mën a waxee ñu dégg ko man fu ma bu ma fa waxee du duñu ma fa déggee à part de ce moment am responsabilité bu nga xam da nga ko war a assumer responsabilité boobu mooy bu fekkee ne bëri na ñu nga xam boo waxee ñu topp la bu indi woo wax leen lu nga xamante dafay jëmale réew kanam wax lu nga xamante ne day defar et non pas lu nga xamante ne dafay yàq ça c'est une responsabilité bu nga xamante ça incombe à tout porteur de voix nga nekk homme politique nga nekk chef religieux nga nekk nit ku nga xamante ne am nga kàddu ci ci mbooloo bi ba ñu lay déglu à partir de ce moment là tu as ce devoir là de responsabilité et tu devoir là également ña nga xamante ñoo topp sa ginnaaw nga war leen teg yoon parce que yaay seen guide te boo nekkee guide si sa kàddu si sa doxin ak si sa doxalin yëpp da ko war a def ba nga xamante ne amul kenn koo xam ne am na lu ñu leen ŋaaña donc à partir de ce moment là comme ni nga ko waxee les hommes politiques moomuñu dëkk bi en fait voilà benn pàcc lañ ci askan bi ñun bu ñu defee naka su dul noonu dañuy wax ni def ngeen naka sa dul noonu mais ñoom également bu ñu defee naka su dul dañ leen wax def ngeen naka su dul noonu te ils n'ont pas droit ils ñu jël suñu réew également di fi wax ay wax yu nga xamante je veux je me dis nekkul ci sunu culture et nekkul lu nga xam mooy avant sunu réew voilà jarul ñu koy xeeb ak nu mu mën di demee dañu am benn tradition bu nga xamante moom moo fi nekk tradition bu nga xamante wax waxante wax ju baax xam nga defante def ju baax et puis am tradition de dialogue am tradition yu nga xamante ne ñun ci sunuy maam lañ ko jëlewaat na amaa ko ñu naan dañuy def ay politique et consort ah. donc il va falloir que également ñu sauvegarder ko xam ni réew mi ñun ñëpp ñun ñoo ko bopp te kenn mënu ko pàcc ñaar mënul nekk c'est pas possible du tout merci beaucoup jërëjëf euh, Alaaji Daouda ci euh, jàngat bi léegi léegi dañuy ñëw euh, jàll ci pàcc si suñu chaîne YouTube ngeen door saa su nekk ay yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim